c'est 778 32 03. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara fas yéene yëkkati ay kàddu jëme ko ci jëmm joo xamante ni ngunaa ba kóoyul mbaam la di mbaam mu kàdd yàlla dogal nag saa bu mbaam weqee nguul wi nu yor nu génne ko te jii nag ngunaa ba kóoyul mbaam lii wequl dafa waŋiitu moo tax yat wi du ko dal benn yoon rek li ma tiitre nga xamante ni ku ko xool ma wax ni Cheikh Omar Diagne franc bu bon bi fenkat bu mag bi awma sañ-sañu jóg rekk di dal ci kaw nit te awma fu ma ko teg waaye li waral may def vidéo bi ci laa bëgg a ñëw ndax jógoon na fi dal ci kaw Chadda Mourid Sadikh maam Issa Gueye sëñ Moustapha Mohamed Diop Mamadou Moustapha Diop Paris waaye dootu ko dolli ndax lu muy jaay lu ne ñooñaa ko ko ëppale muy xam-xam di ab yar ak lu man di doon murid yi nag am nañu ab yar waaye xaside googu ñuy wax saadatul muridin fi am day xayrul mursalin te ñu gën ko miin ci raahiya Sëriñ Tuubaa dafa am wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni boole woon ak nooy akuk dëgër baslun wa baasun li man laanoo wa man jaaru murid itam dañoo boole ak nooy akuk dëgër soo ñëwee ak jàmm fonk seen kilifa ñu won la nooy gi waaye bu fekkente ni dangaa ñëw bëgg fontoo seen kilifa ñu won la dëgër gi euh, li tax ma fas yéene yëkkati kàddu yi damay jéggulu ci biral gi ma leen koy biral ngeen koy dégg loola moo di lan mooy ki ñu wax Cheikh Omar jaañ dafa saaga murit yépp wax ci Serigne Touba loo xamante ni moo ko njëkk a wax ci Sénégal doon naa feq boo xamante ni moo gën a doon am naa feq Abdullah ibnu Hubay lu ko waral mooy dafa am ñuy làqatu ci ay faux compte ay compte fictif ci Facebook bi lu nañu di ko yekk yoon waaye ñooñu dañuy soppi seeni tur kenn xamu leen moom mu ni damay am fitu ni dajj ñëpp di ma gis may wax waaye ba muy ne wéyee day tontu murit ceddu murit saadix ñoom dafa am ay kàddu yu neex yu mu jóg yëkkati ko wax ko ci Serigne Touba fierté la pour euh, euh, euh, jullit yi je n'ai rien contre Serigne Touba ñiy wax lay waxal ndekete loola bi muy wax ñu jàkkaarloo ak moom loola lay wax ngir ñu di ko dégg waaye ña doon làqatu ca seeni compte ya Cheikh Omar Diagne leen raw Cheikh Omar Diagne lan la def ba mu waxee loolu nga xam ni loolu la murid yi dégg mu dugg ci seen nopp dafa dem bind la mu bind nag maa ngi jéggalu ci leeral gi waaye loolu moo tax ma def vidéo bi Cheikh Omar Diagne dafa bind ci ab commentaire wax ni murid yi ay con lañu génnewu ca kenn nee na murid yi ay con lañu te ay con nag boo seqeek ñoom booye boo nga xaar lu ne ci ay tojaanga nee na murid yi ay con lañu ndax ca la yam déedéet mu ni nit ku gëm sab xol yàlla nga ko war a jox mu ngi ci jublu murit yi waaye waroo koo jox koo xamante ni bii sunu boroom a ko sàkk mu ni kon sunuy xol yàlla lañ ko war a jox waaye waruñu ko jox Serigne Touba ndax nee na Serigne Touba càkkutéefuk sunu boroom la te mu ni càkkutéef googu nga kooku nga xamante ni moom la ñu jox seeni xol muy ko tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba waxul ni bokkul ci góor yàlla yi waaye la mu wax moo nee na Serigne Touba bokkul ci góor yàlla yu baax yi nee na jigewu leen sax da leen a sori lool loolu moo tax ma di nag kii faw ma wax ak moom ndax yoonu murit ni ñu toll bu ñu doon woon ay jullit itam kenn waru leen a traité de con sëriñ Touba ku ñimee taxaw ci senegal wax ni Serigne Touba bokkul ca góor yàlla yi waaye daf leen a séenul sax loolu mennum Omar Diagne Cheikh Omar Diagne la xaw moo sañ loolu loole nag moo tax ma jóg bëgg a wax ak moom ci jëfi lâche yi mu def buy wax wax lu neex ndax bañ ko ko duma buy bind dinu saaga loolu jikkoy jaam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg la Cheikh Omar jaam la boo xamante ni ca sunu maam aadama ak Awa ba léegi musta nguyaay musta am péexte jaam la bu musta libre ndax nit ki bu fekkee as gor nga looy wax danga koy assumer ñu xam ni yaa ko wax waaye booy wax wax lu neex booy bind bind safaan ba loolu moo tax maa ngi jégglu ci leeral gi ma ko leeral waaye dama bëgg képp ku ko séenati muy wax nga mën a waat ni ab naafeq nga ne boo xamante ni moo gën a doon ab naafeq Abdullah ibn Hubay waaye doon ca ni ab fenkat nga ne boo xamante ni bii Musaylamatal kazaab moo ko dàq fen Cheikh Omar Diagne tey bu seenoon xarum bali bali ni e kooyum bali bali bi ak rëy bu nit ñi geesoo mbaam la ñuy gis ngunaa ba kooyul mbaam ni moom la ñuy gis waaye duñ gis am xar ndax moom ab fenkat la ndax fenkat ca la yem déedéet ab jaxasekat waaye li ma wax ni ab franc-maçon la man awma sañ-sañ ñu jóg rek ni diw ab franc-maçon la moom moo prouvé ni moom ab franc la lu tax ba muy tontu ceddo murit saadix ñoom moo ni mbir bu fekkee bokkoo ca amoo ca sañ-sañ munoo caa wax ndax xamoo ca dara te moom fu mu toll kilifay àddina yi diw franc-maçon la diw franc-maçon la diw franc la man awma ma taxaw ni diw ab franc-maçon la moom mii ma ni franc-maçon la moo ko prouvé moo ko wax ndax nee na loo bokkul waroo caa wax ndax xamoo ci dara kon moom li mu nu war a mooy ban loge maçonnique la bokk ndax ku jog mu ni ab franc-maçon la kon bokk gam ca bokk bokk ak ña ko doon ndab lu ñuy lekk moo tax mu mën a xam ñi mu bokkal ndab li loolu moo tax ma ni ab franc la du affirmation gratuite yëguma rek gis naa kuy def benn commentaire naan ma nanga nu wax lu tax nga ni franc-maçon la bu mu doon waxi mer déedéet ay waxam laa wax mooy wax ci mbirum wérd ni caddo burit saar yi ñoom waru leen cee wax ndax bokku leen ci ku ci bokkul ñoo koo joxe nit ki lu mu bokkul munu koo xam munu caa jàngale kon moom mi nga xamante ni ku jóg mu ni franc-maçon nga def di franc-maçon laa sukkandiku ba ni moom franc-maçon bu bon la ndax ña doon ay franc dañoo noppi waaye yow bokk ci mbir mi ba pare foo toll di dénoncer ñi ngi ko bokkal loolu moo tax ma ni franc-maçon bu bon la jaxasekat la fenkat la moo raw Musaylamatul Kazzab lu tax dafa fen fen woo xamante ni ma di leen xamal ni baatu fen bii may jëfandikoo nag ba muy tontu Ceddo Murid Saadix ñoom am na ku ko envoyé message ni ko fen aw saaga la mu ni ko déedéet fen du aw saaga moom mu rafetal baatu fen ndax la mu ci géeju lool bu doonte ni fen dañ cay am ay diplôme man yi docteur la en phénologie kaj ci la man kon baat boobu mu wax ni ayut moom lay jëfandikoo lu tax ma ni ab fenkat la Cheikh Omar Diagne dafa kàcc kàcc wu rëy woo xam ne dafa dem ba ci biir mu ni ah man kër li ma def ëpp na ndax maa ngi bëgg a war boole war gileem ak war mbaam te loolu taat wu xotteeku moo ko ca fekk boo bëggee war gileem ni mu sutee mbaam bëgg a war gileem gi waraale mbaam mi saw taatay xottiku loolu moo dal Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne fan nga mas a dégg murit bu taxaw ni góor yàlla bu mag ba doon jàmmarloo ak Faidherbe di El Hadji Omar Foutiyou Tall yàlla nañ ko sunu borom fayal foo ma sa dégg ab morit ni la dañ koo convoqué woon bureau ba ca Ndar El Hadji foo ma sa dégg ab murit bu ni la dañ koo convoqué ci bureau ba ca Ndar li tax ma ni danga nga bëgg a boole war gileem ak war mbaam El Hadji Omar Foutiyou Tall yàlla nañ ko sunu borom fayal ma nga réer dans les falaises de Bandiagara au mois de février 1864 ñu teg ca ñaar fukki at ak juróom-benn cheikh al islam cheikh Ibrahima Niass feeñ en mille 1900 kon El Omar làqu na ba ñu teg ca ñaar fukki at ak juróom-benn cheikh al islam cheikh Ibrahima di doog a feeñ. ba nga ko waxee nag mu tàmbalee tas nga xam ni fen nga fen wu rëy la ca jublu mooy bëgga boole. tarixa tijaani ak tarixa murit bëgg a boole waa kër Serigne Abdoulaye ñas ak tarixa murit waaye loolu munoo ko démb rek taalibey Serigne Touba yi kër ga ñu jënd deux cent dix millions ci seen sénaat si ca États-Unis deux cent dix millions yooyee taalibey cheikh ya fa nekk joxe nañ ca quinze mille dollars mu war a toll ci juróom benni million boo demee Europe bu kilifa yi tijaan yi ñëw murit yooyu ñooy yore ngan ña bu kilifa murit di ñëw tiijaan yi ñooy yore ngan ña di ci def seen alal di ci def seenu ñàq pas plus tard que màggalu Touba gi jàll waa kër cheikhul euh, cheikhul islam sëñ Ibrahima Niass ñoo doon def conférence ba ca Berlin di capitalu Allemagne xalif général des Mourides bi xalif général des Tidiane tàmbalee waate liggéeyu jumaa yi Tiwaawan ji gis nañu lam ca def màggalu tuubaa gi gis nañu la xalif général de Tidiane li mu yónnee xalif général de Mourides kon tuut nga lool ci jéem a boole tarixa yi nga wax ni murit yi dañoo jël seenub xol jox ko mbindeefum yàlla moo xamante ni bokkul ca mbindeef yoo gën Serigne Touba nga ci jublu espèce d'imbécile va nu pied yow koo jox sab xol Cheikh Omar Diagne bu nu la xamut itam danoo xam ñu la xam ñu la miin nun danoo jël sunu xol yi jébbal ko sëriñ Touba yow nga jël sab xol en tant que ngóomum xaj muy fefelaan jox ko jigéen ñi noonu sëñ Touba lan jox sunu xol yow sa xol jigéen ñi nga ko jox loo am ñu lekk ko kon boo waxee ni murit yi dañoo jël seenum xol jox ko mbindeefum yàlla moom bokkul ca mbindeef ya gën xam nga ni wax nga lu ñaaw te loolu da nga koo bind waaye bu fekkonte ni da nga koo wax ñu dégg ko foo man di nekk danañu la fa fekk def la lu bon man nag damay interpeller xudaamul xadim ndax man Mbaye Guèye mënuma jóg ni damay porter plainte Cheikh Omar Diagne nun nun yal murit la ñu doon ban murit moo fi jóg di wax lu dul noonu ci tarixab jàmbur wax ju garaawe nii ban murit moo fi jaga euh, euh, sañ jóg ni mu yi dañoo jox seen xol Euh, euh, koo xamante ni bii bokkul ca ña gën wala dañu dañoo jox seenu xol ci xaadir yi ku bokkul ci ku kan moo ko ñime benn mu ñimewu ko kon Cheikh Oumar Diagne waxuma ak taraxi tarixa tijaniyya déedéet yow laay waxal parce que bokkoo ci yow doo nituk dara sàmba njorodaay nga taxawaalu kat bu jëmul fenn nga yow ton problème mooy lan mooy da nga am crise de personnalité yow sant nga yàlla ci ñi créé Facebook ndax crise de personalité moom nga am bëgg siiw bëgg aw tur moo tax ku jóg nga ni ab franc-maçon la fenkat bu mag bi nga doon tarixe yi nga bëgg a boole du sotti naafeq gi ma wax ni naafeq nga itam booy wax ci murid yi lu ñuy dégg bërki démboo nga fi wax ci Sëriñ Muntaxa murid yi di daanuy jël loolu itam damay wax murid yi ni leen nanu leen tey sëriñ Touba kenn dafa te wax ci moom lu baax lu ko jomb kon nan moytu ku jóg ngir di nu neexal comme Cheikh Omar Diagne mii ni day wax lu neex ci yoon wi nu jóg di daanu mel ni li mu wax dafa jomb sëriñ bi tagg bi mu tagg sëriñ bi daf koo jomb sëriñ mu Ka tagg sëriñ bi sëñ Mbay Jaxate tagg ko sëñ moor Kayre mu mel ni ku bokkul ci yoon wi boo waxee da day day rëy ci nun ba fenn fu nekk nu yóbbu ko fa ñooñu doon tagg sëriñ bi li ñu ko wax keneen du ko ko wax kon nag ku waxati ci sëriñ bi lu baax nan xam ni wax na lu baax waaye seenul fa sëriñ bi egg ci mbaax sëriñ Tuuba lu waay wax ci moom ci mbaax doyut noo yegg fa mu yegg ci ak mbaax kon nanu bàyyi loolu sëñ Samba Diarra mbay li mu woy Serigne Touba kon voix du pied boo xamante ni da nga naan eh naa wax murit yi lu neex waaye bu may bind naa leen xas muy Cheikh Omar Diagne loolu dañ cee war a bàyyi xel Serigne Touba kenn munta wax ci moom lu baax ba egg fa mbaaxuk Serigne Touba yam kon loolu dañ cee war a bàyyi xel bàyyi rek ku jóg wax lu neex mu mel ni dafa jomb sëriñ bi ñu naan ak saa ku nekk di commentaire alors que buy bind dem bind lii mu bind ndax ba Sénégal di Sénégal ba tey Cheikh Omar Diagne moo ñemee wax lii mu wax Serigne Touba ndax moom ma ngay wax ni professeur la man ay tiitram ñoruma waaye ab tooñkat la ndax li ma leen wax Cheikh Omar Diagne parametre yi natte nattee góor yàlla yi xam nga ni boo dee sëriñ bi bokkul ci ñi gën ci góor yàlla yi jigéewu leen sax xam nga ni dangay fen yow yaa mën a fen waxuma waxi baatin waxi saay rek laay wax sëriñ Tuubaa nga xool dëkkam bi xool màggalam gi xool jumaam yii du ma wax jumaam ji xool jumaam yi bëgg koo génne ci góor yàlla yi waaye loolu nun ay ree la nuy def dama bëgg wax murit ni rek kan mooy Cheikh Omar Diagne te jóg ci moom nag dafa jot ndax juddu bërki démboo fa nga wax ni fa nga bokk te gëm naa ni bokkoo ca sax ñuy rafetalante lool ci diggante tarixa yi yow nga jóg wax loo xamante ni bii kenn mësu koo wax dafa jot nag ñu jóg wax ak Cheikh Omar Diagne ñaata nekk ci biir kaso bi ñoo xamante ni bii le président de la république la ñu offensé le président de la république ab institution la offense à un chef de l'état délit la alors offense à Cheikh Ahmadou Bamba moom du délit offense au mouridisme du délit yéen ñi nga xamante ni bii yéen a yor xudaamul xadim jóg leen ci saay-saay bu mag bii di Cheikh Omar Diagne ndax lii de bu ngeen ko bàyyee mu jàll ëllëg dana wax lu raw lii ndax kenn mus a dégg ñi dul ay jullit sax di wax ci Serigne Touba lu mel ni lii ko Cheikh Omar Diagne wax Paul Marty jaar na fi ñu bari jaar nañ fi waaye kenn ku ci amoon fitu wax lii Cheikh Omar jaañ wax amut loolu nag noo ko ko may ndax tey su fekkoonte ni buy génn day geesu defe ni muritan ci wetam ngir toj lu bonam kon du ko xalaata wax wootewuma ci violence déedéet waaye nag murit yi ni ñu toll ci senegal nga taxaw ni murit yëpp ay kon lañu te booy wax ak ki kon kii nawloowunu bu fekkente ni moom téréréem ji muy wax yépp jàppewul murit yi lu may ay kon ba ni ay kon nag booy wax ak ñoom lu ne mën nga ko cee dégg commentaire bi boo xoolee vidéo bi miniature bi commentaire am ka mu doon waxal la mu bind moo ci nekk kon nag ma ni trop c'est trop te yow day Cheikh Omar Diagne li ñuy wax bàkk nga njàkk bàkk nga njàkk ma wax ni bu ma kenn ni Serigne Touba kenn du ko xeexal kenn du ko xulool ku mu jaralul xeex a xulool yaa xam man daf ma jaral sama bakkan ndax Serigne Touba ba muy liggéeyal sunu borom lii nuy añe tey daf ko jaraloon bakkanam kere ba muy sànni deram ba ci géej gi xamul woon ni bu wàccee du suux dafa xam ni lu mu war a def la mu def ko ñaar téeméeri nattu ak juróom ñetti fukki nattu ak juróom yiñ ko nattu nattu bu nekk jël na bakkan kon ba muy liggéeyal yàlla daf ko jaraloon bakkanam kon noon bu fekkente ni dañuy topp Serigne Touba ñu di ko ñi te jaraloon suñu bakkan kon tekkiwunu dara duñuy murit il est temps pour ñu jóg bu dee dafay jar dem ci gouvernement bi ñu dem assemblée nationale voté loi boo xamante ni bii tarixa bu mu mën di doon wala kilifa gu mu di doon ku waxati ci moom lu dul noonu ñu yóbbu la rëbës mais kon mu wàññeeku liberté d'expression la ñu wax fii koo fi saaga ndey mu xeex ak yow koo saaga bàyyi mu xeex ak yow ah, ki nu gënal sunu ndey ak sunu baay nun dañuy seetaan ñu di ko ŋañ xalaatuñu ko kon yow Cheikh Omar Diagne ne la wóor ni bàkk nga njàkk lâche nga ab traître nga li ngay def ñime woo ko doo ko assumer ndax fen yi nga fenoon ci bureau ba ca Ndar ba nga demee ba xam ni fen nga dindi nga ko boo ñime woon lii nga bind danga koy wax murit yi di ko dégg waaye booy wax ni sëriñ Touba ku baax la sëriñ Touba àddina bi te loola mooy dëgg gëmoo ko waaye mooy dëgg sëriñ Touba dootul sëriñ Touba murit yi dootul Serigne Touba Sénégal Serigne Touba est universel la preuve en est démb rek kërug làbbe gu mag ca États-Unis moom la ay taalibeem jënd te xaalis ba ñaar téeméeri million yi ak fukk ci ñaari weer lañ ko dajale taalibe cheikh ya fa nekk dugal ci seenu ñaq yow mi nga xamante ni bii fa nga wax ni fa nga bokk jëralu la un franc doo ko fa def lammiñ wuree nga yor di xaste ku jóg nga ni franc-maçon la jóg di dal ci kaw murid bokk yi lii daal laa ni woon dinaa ko wax li ma ci jublu nag mooy wax leen kan mooy Cheikh Omar Diagne lâche la traître la jaam la boo xamante ni bii ca sunu maam Adama Awa ba nëgg ni libre te du mas a ndax yenn yi jikkoy jaam la as buy buy wax la muy wax daf koy assumer mu jaralal ko bakkanam waaye booy wax li ñuy dégg wax lu neex booy bind bind lu ñaaw loolu ab traitre ab lâche rek moo koy def kon boo nuy bëgg rey naan professeur Cheikh Omar Diagne doo professeur dara lii daal laa amoon ci lool dama ni woon faw ma wax ko ndax ñamu doon wax ci mbiru wér rek ñamu doon song maam Issa Gueye Cheikh Mamadul Muntaxa ko tànn mu bokk ci ñuy jàngale xam-xam ca jumaay Masalikul Jinaan Mouhamadou Moustapha Diop boo ko fekkee taverni kër sëñ Saliou xam ni du sa morom ci benn wet bu dee diplôme moo la ko ëppale moo la dàq jàng gën laa doon jàmbaar ndax moom li muy wax daf koy assumer Moustapha Diop Mouhamadou Moustapha Diop du wax lee ba noppi jaar ci suuf di bind lu wuteeg la mu wax yow nag loolu ngay def parce que lâche nga ñi ma woo fay cedd murit saari waxi noppi la muy wax daf koy wax ñëpp di ko dégg waaye du wax lee nar lii loolu nag yëfi jaam la rek te yow jaam nga boo xamante ni bii mosoo libre te li des ci sa dund doo libre maa ko wax ndax jaam lan la jikko jikko la kenn jaayatul jaam mais jikko yu ñaaw jaam ko yor yow jikko ju ñaaw nga yor ab tooñkat nga ku fekk mbooloo ñoo xamante ni bii ku la ci ëf nga naaw nga wax leen li ngeen leen wax di leen traité de con jàpp ki ñu yaakaar wax ni bokkul ci góor yàlla yi jigewu leen sax yaa mën a fen waaye nag doxal rek mbokk yi daal maa ngi jéglu waaye lii laa ni woon faw faw faw ma wax ko ak nit ku bon kii framason maçon bii dural mu ko moo ko wax moo ca géeju bokk ca moo tax mu sañ jaa wax su ko waxuloon du ma ko ko wax fen yi moom da ko fen ba ñëpp teg ci seen bët mu daw ndax musta dégg benn murit bu ni El Hadji Fouti Tall ak euh, Cheikh Ibrahima Niass dañu leen a woon biro ba ca Ndar moo ko créé dem ba ca biir mu daw naa fekk la nday de ndax day wax lee bind lee kon lii laa woon danaa ko yëkkati rek ndax moom dañu ko seetaan